ñëw dindi ko nu mu leen neexee au lieu de ça pourquoi ne pas chercher des solutions yoo xamante ni daf leen di permettre ñu régler des problèmes à à long terme. mais je partage totalement. li nga wax dama ci ànd à 200 pour li ma jàppoon ni mooy am ni loolu et puis c'est la c'est la presse de s'organiser ban presse ngay waxal tey soo ni presse ñëw leen téeméeri organisation ñëw bu ngeen bëggee modèle modèle économique am na solo mais unité bi koy porter aussi am na solo on a des presses on n'a pas une presse. néew na nga gis bu ñuy xewlee da ngay gis ñii beru noonu la ñii dem barki Dembo Ndiaye gis nga ko quand la presse a voulu elle ne parle pas d'une même voix bref kenn amuko du position du consort mais li nga wax dama ci ànd ak yow il faut un modèle économique sur ñu bañ a yem rek sur des situations conjoncturelles amnistie fiscale ñëpp war a fay impôt dama ci ànd ak yow tout le monde doit payer mais nan lañ mën a def ba accompagner comme tu le dis mu am une caisse de péréquation permettre à la presse de se organiser même la publicité RTS ak keneen ñi ngay am yenn yi état yi mu yor comme organe mu ngi leen di subventionné on la publicité au moins ñu mun ko répartir la la presse privée ñoom itam ñu mën a suqaleku ak des possibilités d'emprunt pour pour faire de la de la presse une une structure euh, économique aussi parce que nguur gi nga xamante ni tey bi ñu ñëwee installé ñoom li ñu njëkk a xalaat bokk na ci rationaliser les les les les dépenses publiques. Mhm. alors pour ñu rationaliser les dépenses publiques aussi am na ay stratégies yoo xamante ni teg nañ ko booy xool moom moo tax ñuy càmbar yu baree bari ci milieu sportif puis sportif bi aussi boo demee di nga gis que ni ñu ngi laajte bilan yi nga xamante ni moo jàll ci coupe du monde bi CAN bi et autres donc dans tous les ngi gis ay ay ay euh, demande de bilan yoo xamante ni dañ koy xaar mhm. moom moo xew ci presse bi nguur gi fi pe weesu am na ci part de responsabilité parce que nee nañu moom moo décidé la suppression de la euh, dette fiscale bi nga xam ne moom moo nekk ci diggante presse bi alors diggante boobu noonu kañ la président Macky Sall décidé woon supprimer li nga xamante ni moom moo di euh, dette bi parce que booy xool euh, vers la fin de son mandat ci la jël décision yu baree bari loolu nag sénégalais amoon nañ ci benn vision jàpp que ni nguur gi forcément dinañ am jafe-jafe ak askan wi dans tous les domaines alors. waaw bi mu koy jël mu ngi nekk président. mais kañ nga ko jël c'est la pas important. est-ce que c'est légal may ma may ma waaw ah, su ngeen ma may yéen tamit ma ma su ngeen ma posé question bu leen ma soxor soxoree nii mun leen ma tere tardé dem Touba pare di ma def nii voilà ok nag yéen tam def leen ma ne mm. li am solo man ci li ma jàpp mooy ndax est-ce que waroon na ko def mm. est-ce que sañoon na ko def man ma ni sañ na ko def ndax il encore président mm. ndax kat li mu jël ci mesure ci jamono jooju ngay wax bari na yu kenn laalu pourquoi bii ak bii man dama jàpp soo jàppee ni période boo waroo cee jël liñ ci jël yëpp da nga koy effacer wala mais dañ koo tànn dafa am ñu ci tànn su dee amul rek ne maamul télé lay wax. mais su fekkente ni ñi na askan bi nga xamante ni. moo xam na kan tey te askan wi. Ah. je parle ñi nga xamante ni ci askan wi mais askan wi. presse d'accord benn pàcc la ci askan wi waaw ah, kan moo dul benn pàcc askan lan lan lan lañ bàyyi mu mu concerner askan wi yëpp. ah mais ah? ci askan wi la jëm. waaw dëtt ci ñun la jëm. waaw ci ñun ñun ñun presse bi koy fay. waaw ci ñun ñii sénégalais lambda yi ci ñun la jëmaat. su su su bor bor yoo amel fisc kay. Euh, waaw da nga war a fay dama d'accord xam nga dama bëgg. li bay bay dem di éponger ay def yéen a ngi sur des jugements d'opportunité. non moi je suis am ah, xam nga bu ngeen ma déglu rek man. daa bàyyi bay dem éponger ay def du ma ko dama ni. Mm. man je suis sur des de légalité. parce que opportunité ki ko jël mooy ki xam toute la situation mais dama ni est-ce que yoon may na ko mu def comme déet. loolu rek lay demande may na ko voilà lan moo tax mu def ko nag comme suivre ma dossier bi bu ma ci waxee rek ki par par la wala wax lu ma xamul c'est que dans la légalité la seule personne habilitée à le faire c'est le président et j'ai constaté que ni dans cette période il a pris pas mal de décisions mhm. am na yoo xam ne ni kenn laalu ko am na yoo xam ne dañ koo laal ki ci mën a répondre ki ci mën a répondre là aussi Diomaye a toute la légalité d'apprécier de retirer ou de valider. du fekkee woon ni lu ñu validé wuloon. li ma gëm mooy ni président Macky Sall. la mu doon def il le faisait pour askan wi. la mu doon def il le ferait pour njëriñu askan wi. déggu li mu la xam nga loolu c'est déggu li la c'est à lui est-ce que avant le problème se posait c'est là pas la première fois ñu amnistier la presse. c'est pas la première fois te nag bi bi maman di wax avant boobu benn presse rek lañ fi singali woon ci mbirum impôt des médias. nañ ci li nga yëg. parce que là aussi c'est man may wax koy waxal du man man du man député ngay waxal amul lu feeñ xam nga le problème bi ngeen def yéen vous prenez vos télévisions le Sénégal soo demulee au niveau des impôts nga vérifier soo waxee lii da ngay daanu mm. am na ñoo xam ne Bougane il en naa fait un combat politique et médiatique am na patron de presse yu ñu singili ñuy dem di fay ñuy demander des moratoires te génnuñ ci parce que amuñu presse bu ñu waxee bu leen jël benn fait pour en faire une vérité c'est loolu day dekk juumte parce que patron presse bi parfois day justifier nature rapport bi muy am parce que tamit nangu leen ni coom ak fisc moom il utilisait son organe pour en parler am naam amul jaar na yoonam jaarul yoon jàpp naa ne jaar na yoon parce que c'est les mêmes éléments des impôts et domaines yi nekkoon ci Macky Sall ñoo fi nekkaat tey donc souvent ñun ñiy politique dañuy def de la géométrie variable moo tax ma ne la président Macky bi mu koy jël amoon na sañ-sañ bi yoon may na ko ko maintenant pourquoi aujourd'hui et pas avant c'est le seul à pouvoir répondre loolu laa la mën a wax joma li ma jàpp man mhm. damay ñëw fii mooy lu président Macky Sall njëriñu askan bee tax man loolu laa jàpp bi may ñëw fii c'est ma position très prête njëriñu askan wi la gaa waaye nag heure ba mu ko defee moom mooy problème am na waaw am na ci droit foofu aussi dama lay foofu moom am na am parlé waaw mais xam nga xam nga yéen tam ñu métti ngeen da ngeen yéen yéen da ngeen yéen diisu leen da ngeen diis yéen wu leen li ko yoon may mu def ko jomay ñëw yoon may ko bu ko neexee mu dindi jomay dindi où est problème a disconvient yow bu fekkoon xam nga man laa où je la de scandale ca ngeen war cee wax mooy mu def lu ko yoon mayul mais ku war a xëy huit heures ak si sept heures cinquante cinq nga ne ko lu tax nga ak sept heures cinq huit heures nga war a xëy moom ci moom cuggalu génn yéen ñi lay wax parce que temps bi du ko ko may non kooku xam nga kooku xam nga boobu yaa ngi def des jugements inopportuns te tegoo ko fenn wax sa xalaat la te loolu yéen war ngeen ñu ci dimbali yéen homme de média yi dañuy ñun ñun ñuy wax ñu wax lu ñu xam parce que ki ne lim féetee rek lay wax xam nga li ngay wax nii waxi waxi waxi waxi banque publique la waxi console parce que opportunité bi mënoo ko xam nga durée bi la légalité koo xam ne nii yaa ngi ko mën a def yoon may na la nga def ko moo daan am moo am du lu bees ci réew mi. mais est-ce est-ce que loolu empêcher ñu wax ci les les conséquences yi nga xamante ni jur nañu ko. conséquences comme. le problème le euh, fiscale xam nga d'accord nga ni non mayuma ni Balamine amnistie d'accord nga ni. sañ-sañ la bu président mën a am. bu ñu war a jaarale assemblée nationale ñu voté ko pour que mu entre d'accord nga ni sañ-sañam la. Mhm. waaye nit bu defee sañ-sañam. sañ nga ko critiquer am nga ci droit mais nangul ni au moins il reste dans la légalité maintenant opportun ou ne pas opportun ça beneen patron di wax peut-être que ni bi lambda am na koo xam ne waru ko woon def mhm. c'est ça la démocratie. ñu xam nga loolu laa loolu laa loolu rek laa si bëggoon préciser wax na ko mais je crois man en am na benn question boo xamante ni intéressé woon na ma loolu loolu mooy euh, dernière sortie Ousmane Sonko <laughs> nee na carrément yéen opposition bi moom soxla état de grâce yéen fi doon nekk di woote état de grâce état de grâce moom neen soxla état bi boobu ba tey yéen ngi nekkoon si terrain bi di lëmbee mais la récréation le roi est waaw xam nga Ousmane moom. il est tey ban ngay am. non amul benn jàngat rek. c' est que il n'a pas compris que ni changé na station Ousmane adversaire am mooy xale yi dem Nicaragua te amul solution. adversaire am mooy mbënn ma am Touba adversaire am mooy situation Jakarta maa ni adversaire mooy dund gi adversaire am mooy mbay mi qu'il sa qu'il ne se trompe pas de position li li ko doon li mu doon def mu koy jig di laaye c'est parce que il était le